ndax seigne muntaha neena li bu doon jamonoy jaas ya kon gor nañ leen ay jaas ray nañ leen bu yàgg ndax seigne muntaha bu demee ba wax la ne yow da nga réer da nga njubati da nga top sa bakkan da ngeen top seen aduna loolu kat loolu dafa doy waar kon soxna ay ay di jàpp sëñ Muntaxa bu demee ba wax ne yow da nga yàqu waaw ndax ni waxante dëgg fii lan na du bois du fi am maslaa du fi am seigne muntaha yow la doon waxal tudd na sa tur ñaar yoon man de dégg naa ñaar yoon fu mu tuddee sa tur sëñ Xaadim ak seen Cheikh Saliou Thioune ku àndul ak moom sànni sànni sën sën sànni lañ ko ci àll ba sën man gën naa dégg sën liggéey waaye bu fekkee ne moom dafa dëgër bopp mu ne dafay beggee ko loolu bu ko defee du ko jikk soxna Aïda Diallo tas nga yaakaar cantaay muy université bii nga xamante ndax kat gaa ngi xam ngeen ay wax moom bu jógee ay wax rek koy fay waaw wax ji koy fay na ci moom mooy mooy jëf waaye du doon ay wax yu ñàkk fayda ndax ñun moom sëñ Béthio waajal nañu tey wax dëgg yàlla bi ñu tontu ay naxa saxandan tas nga yaakaar canta Cheikh Béthio yi lu ko waral ndax yow bu fekkee yow yaa waral Sëriñ Mountakha tedd bi génn démb 22 wax 22 minutes maanaam ñaar fukki minutes ak ñaar xalif général des mourides bu tedd ba bi nga xam ne bëggul sax wax buggul coow buggul feeñ génn yàq la lu ne xame kon nag foofu rek nga war a xam ne yow daal nga waaw ndax yow sëñ bi dafa wax ak yow ñaar yoon njëkk na wax ak yow jumbel ngeen toogaat mu wóor la bërki démb rek wóor la wax ak yow waaye sëriñ bi dafa génn mu ne lu li mu waxante ak yow def loo ko ndax yow dangaa génn nga ne sëriñ bi ñëw na daf la wóor daal di la teral waaw li ñuy wax lépp dara am ci dara amu ci xalif général ma woo wuy naa ko wax naag man à huis clos teral na ma mbég laa fa jëlee aku cant loolu nag moom metti sëriñ bi ndax sëriñ bi du moom bëggul mu wax ak yow wax la ay ay ay santaane ne la lii laa bëgg nga def def la neex parce que sëriñ bi nee li mu la waxoon def loo ko ba pare yow nga génn wëlbati wax bi ne sëriñ bi daf laa teral kon loolu rek ñun loolu la nekk ciy weddi waaw man soxna Aida wax dëgg dafa ñëw rusloo ñun ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci réseaux nekk ci YouTube bi ko faral naan nit ñi wàcce leen ko bàyyi leen jàmm ndax soxna dañu waxante dëgg rakku sëñ Cheikh Saliou Thioune am daf ci am ñoo xam ne dañ ko sonaloon di ko dal waaye nag xëy na lii moo taxaw ñu lay dal xëy na am lii lañu gisoon ci yow waaw ndax nit koo xam ne yow sëñ Mountakha dafa dem ba génn waxaat waaye nag ñun loo rek lañ doon wax ñun dañ ne woon sëñ Sadio moom dañ ko gis bu dal waaye mbokk si sëñ Béthio yi rakku si man daf leen dànk ndax sëñ Sadio moom waxoon na ne lu mu yàgg yàgg yàgg cantaa yëpp ci moom la ñuy mujjee man loolu rek laa doon wax waaw waaye nañ wax ci li sëñ Mountakha wax te lu doy waar ndax sëñ Mountakha bu demee ba wax la ne yow dangaa réer dangaa njubati dangaa topp sa bakkan dangeen topp seen adduna loolu kat loolu dafa doy waar mu waxatee la sëñ mu tënk mu taxaa nee ne yàqute mosu fay dugg fii ku fa yàqu yaa yàqu sa bopp kon soxna ay ay di mu taxaa bu demee ba wax ne yow da ngaa yàqu waaw ndax dañu waxante dëgg fii langue de bois du fi am maslaa fi am sëñ mu taxaa yow la doon waxal na sa tur ñaar yoon man de dégg naa ñaar yoon fu mu tuddee sa tur waaye soxna ay da wax kon moom jox na mi ngi jox na la sa titre ndax gis nañ fi soxna Fatim Coor Cuun ba mu génnee di wax Aïda Diallo Aïda Diallo ñun loolu lañ ko def na metti waaw ndax soxna Aïda lu bon bon sa bàyyi Cheikh Béthio moo ko moo ko jëloon def ko njiit moo ko dencoon kon lu bon bon booy wax moom da ko soxna Aïda ba ñu gisee tamit benn doomu Cheikh Béthio Cheikh Béthio nekk ci hôpital ba muy dal ci kaw soxna ñun loolu la moo ñu metti woon moo taxoon ñu ànd ak soxna Aïda parce que man dama ne soxna Aïda kenn dégg ko wax dara kenn dégg ko wax dara man loolu rek moo ma neexul ci moom ba ma ne su may dem ci moom laay dem mais man waxuma ne damay jébbalu ci moom ndax man gis naa benn vidéo xalaat TV ñu wane benn góor yàlla bu toog ne ko jé jébbal naa la sama bopp àdduna ak alaaxira man dama ne seen organisation neex na ma tey su ma doon ànd damay dem ci soxna ay Aida mais loolu li ma dégg sëñ Mountakha wax démb man pare naa ci soxna Aida ndax kat murit la te murit digal digal boo déglu discours am c'est un discours cohérent maanaam discours la boo xam ne dafa am bopp am kenn ñun wax dëgg dañoo war a sant yàlla képp kuy murit képp kuy Sénégal képp kuy jullit muy chrétien ñu am njiit boo xam ne mag la macha allah yàlla na ko fi yàlla bàyyi waaye xel maa ngi fi li mu wax yëpp waaw wax na neuf minutes wax affaire yàlla rek lay wax topp leen yàlla jub leen neuvième minute bi ci lay doog tëju becco waaw moom nee na ci commencement bi la leen ne sëñ Xaadim ak sëñ Cheikh Saliou Thioune ku àndul ak moom sànni lañ sën sën sànni lañ ko ci àll ba sën man gën naa dégg sën sën mooy mbalit mooy comme mbëbës kon soxna Aida loolu la sëñ Saliou wax nañ la sànni ci mbëbës kon nag yow war ngaa xoolaat sa bopp bu baax ñu la topp bu ñu amee bopp dañu war a bàyyi dañ la war a bàyyi man de man dama ne woon damay dem ci yow man de dem musuma gis soxna ay te yaakaaroo ne dinaa ko gis li fekk tuubul ndax lislaam boo tuubee dañ lay baal li fekk demul ci sëñ Saliou Thioune mu jéem a ànd ak moom mu liggéey waaye bu fekkee ne moom dafa dëgër bopp mu ne dafay beddeeku loolu bu ko defee du ko jikk ndax sëñ Mountakha nee na lii bu doon jamonoy jaas ya kon kon gor nañ leen ay jaas yi rey nañ leen leen bu doon jamonoy yooyu faagaagal nañ leen ak ay bomb waaye jamono jii ñu nekk nguur gi moo war a def liggéeyam te nguur gi xam nañ ni bu ñu gisee ne yéen da ngeen fi nar indi problème lépp loo leen di def seen cant seen sant yeeg seen nag yëpp yëpp dañ koy arrêté ndax yow nga jël un milliard daf ko ci màggal bi ba pare un milliard yooyu neen neen waaw dafa neen ndax yow bu dee da indi ay nag yu bëri waaye sëriñ bi gërëmu la war nga xoolaat sa bopp yàq sa xaalis pour pour lan ñaata yi jël seen xaalis yoo jox sa na ay la amu leen ci benn yoon ndax sëñ bi nee nañ bàmmeel ngeen war a xool seen bàmmeel kon soxna Aida ñun ñu koy wax li ko dese moom moom pare na moom tas na li fekk àndul ak Cheikh Saliou tas na bu yóbboo mu bàyyi jëm jéem xool leneen lu muy def man nag leen rek moo taxoon ma ko doon faral mooy sëñ Saliou Thioune yenn rakam yi dañoo yàkkamti woon loo leen di yàkkamti yéen seen xalif général moo leen ëpp bàttin max moom nee na xam na ne lu mu yàgg-yàgg ñëpp ci moom la ñuy ñëw yàkkamtiwul waaye yéen ngeen nekk fii di ko xas di ko xas ba day tax ñu bëri tey bu ñu bëggee dem ci yéen du ñu dem ci ndax njiit da mel ni sëñ Saliou sëñ Mountakha ah sëñ Mountakha li muy wax Aïda Diallo yëpp mi ngi naan soxna Aïda Diallo mi ngi koy jox gëddam nee na ko li ma la bëggal sama bopp laa la bëggal waaw kon yéen tamit loolu ngeen war a def jéem a moom waaye di génn di ko di ko xas loolu du tax ay taalibe bàyyi bàyyi ko dem ci yéen waaw sëñ bi daal da nee yoonu murit moom yoonu murit moom kenn mënu ko yàq nasaraan si ñoo leen ëppoon te mënuñu sëñ soxna Aïda Diallo nag bu fekkee ne dafa nar a def li muy def man digaluma ko loolu ñoom seen Cheikh Sa Saliou Samb ñoom ñëpp bu ñu amee bopp dañuy beddeeku balaa ñu leen di génne ci yoonu bu ñu nekk foofu naan dañuy jéem a defal seen seen cant bopp nañu jéem xool nu ñuy tuubee te tuub bi nekk lu dëggu nag ci ñoom man daal loolu laa leen di dégg waaye man mii de pare naa ci soxna Aïda waaw ndax man sëñ Salim sëñ Muntaxa li mu waxee nii te mooy suñu xalif man yàgg naa ko wax sax sama vidéo yëpp loolu laay wax dama ne man lu sëñ Muntaxa wax moom la ñuy def ndax ci dig njëlbeen ba jox na la ay chance yu bëri wax da nee na warmaal leen jigéen ñi ku mu neex na nga àndal ku la neex waaye boobu dafa yaakaaroon ne yéen doo leen fi nekk du puuk réew di wane ay oto 75 millions di wane ay oru oru 68 millions yi ngeen di maye di wax màggal bi bu ñëwee dinañ def lii 17 avril Sénégal bu ñu xamee foo jëm doo dem mu ne ngeen def li ngeen def ci suuf kenn du xam wax ji yëpp loolu la fi mu nekk ay moom jeexal na loolu il faut mu def ko boppam nañ jéem a xool na la ñu defee délégation ndax mu nekk sëñ bi moom julli julli la rek boo leen baaloo te baaloo nekk lu dëgg dina leen baal waaye nag mënu fi nekk di la recevoir di la recevoir di la recevoir nga nekk ci snap ci chat yi di wax bàyyi leen réseaux sociaux yi. gaañ na bax nag gaañu gàmm gi dikk na lu ñuy ci bax. fii kenn warta selaw ñëpp a war a bax maa ngi leen ci woo te bëgg na message gaañ yi bàyyi leen message yi génn groupe yi bu mu génn groupe yi waaw li ñuy wax lépp dara amu ci dara amu ci xalif général ma woo wuy naa ko wax naag man à na ma mbég laa fa jëlee aku cant maa ngi leen ci woo te bëgg na message gaañ yi bàyyi leen message yi génn groupe yi bu mu génn groupe sociaux yi ci boppam la war a bàyyi ndax loo fi wax day génnaat. man de man de suñ mu taxaa wax dëgg man pare naa ci soxna ay ndax kat murit la te murit mu digal digal